dal leen ak jàmm wàllu politique tàggat yaram ak yeneen i xibaar mu gën a fës yéene kaay génn tey jii nii Sud Quotidien moom def taxaw seetlu ci tukki nemmeeku bi nga xam ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dina ko amal tey jii nag ca Banjul lu tukki boo xam ne kat dafa am solo torop ndaxte kat li lëkkale ñaari dëkk yi mu diggante Sénégal ak tamit Gambie ak li nga xam ne kat ñu ngi koy xaar ci tukki boobu bokk na ci lu jëm nag ci trafic bois bi nga xam nañ ko jaarale ci Gambie waaye tamit jàmm ñuy sàkk fële ci diwaanu Casamance menace jihadiste bi ak tamit lu jëm ci njaayam sinébar ak tamit soppi xaalis Sud Quotidien yemul foofu nee nañ kat ginnaaw Mauritanie nag Sénégal dafa tànn Gambie di tànneef xam ne kat mën na koo nangu ndaxte kat nga xam ne moo lëkkale ñaari dëkk yi rawatina li nga xam ne kat dafa soxal mbirum Casamance waaye tamit réussite politique publique yi loolu Sud Quotidien moo ko ci yokk laas di ko feelu ne kat am na solo trop tukki nemmeeku boobu ndaxte kat ñu ngi koy xaar ci lu jëm ci wàllu dossier wu Casamance bi ndaxte su fekkee dafa am lu xam ne kat dafa lëkkale ñaari dëkk yi ndaxte Sénégal ak Gambie benn bopp la kenn mënu koo xaar ñaar am na loo xam ne kat mu ngi xaar ñaar ñiiti réew yooyu noonu muy Adama Barrow ak tamit kii di Bassirou Diomaye Faye loolu nag bokk na ci jàmm ñuy sàkk fële ci diwaanu Casamance le soleil ne jàmm jooju waaye li ko war a moo jëm ci wàllu kaaraange président Bassirou Diomaye Faye li fëgg nag buntu Adama a fës yéene kaay bi ne Sénégal Gàmbi benn dëkk dëkkale kenn mënu koo xar ñaar loolu nag moom yàgg na lool moo tax président Bassirou Diomaye Diakhar fay ba mu moo Mauritanie nag dem fële ca Gàmbi ngir rek gën a rataxal diggante Dakar ak Banjul loolu kat dafay firndeel li nga xam ne kat bëgg na ko maanaam rataxal diggante yi ak ñu ñu wër waaye tamit jaarale ci intégration régionale ak tamit africaine yéen i kaay ñu ko ñeent yokk ne. diggante Sénégal ak Gambie nag moom yàgg na lool am nañ lëkkaloo ci wàllu koom ak tamit ci wàllu diplomatie waaye tamit li koy firndeel gendarmerie ak armée bu Sénégal nag ñoom ñooy aar sax fi mu toll ni kii di président Adama Barrow tukki nemmeeku boobu nag dafa am solo trop ci taarixu Sénégal ki wax loolu moo Direct News nee na kat Sénégal ak Gambie nag am nañ lëkkaloo yu bëri bokk na ci nag wàllu mbay mi napp gi sàmm gi jënd ak jaay ak tamit wàllu hydrocarbure tabaski atum 2024 gouvernement bu Sénégal nag jël na boo xam ne kat bii nañ ko jox ko service su nag fii bu baax fii ci biir Sénégal loolu nag loolu nag jaarale ko ci xaru Sénégal tamit xar yi nga xam ne kat dañuy jógee fële ci bitim réew rawatina def kéem tolluwaay kàttanam loolu Vox Populi moo ko bind di ñu xam ne jël nañ ko mesures yi nag bokk na ci yombalal camion yooyu ñu indi xar yi fii ci biir Sénégal waaye tamit oyofal lu jëm ci wàllu taxi ak tamit fexe nag ba camion bu nekk am ñetti sàmm yoo xam ne kat ñooy topp wàllu kaaraange gi loolu nag ci diggante fukki fan ak juróom ci weeru avril ba ñaari fan ci weeru août atum 2024 yéen kaay bi di ak 24 heures sax ñu ngi fàttali ñetti mesures yi nga xam ne kat daal dinañ koy jël li ni mel te moo gën a fës ci direct info di fàttali mesures yi nga xam ne kat Sénégal daal dinañ koy jël ngir rek fexe ba xar yi daal di bëri yéeni kat bi l'enquête dafa def taxaw seetlu ci président Macky Sall ci lancement pacte de Paris pour les peuples et la planète nee na kat Macky Sall fi mu toll ngi doxal bu baax a baax loolu moo gën a fës ci yéeni kaay bi di l'enquête moom sax fekkoon na réunion printemps bu banque mondiale ak tamit FMI jot na fa daje sax ak kii di Cheikh Diba ak tamit Abdourahmane Sarr suba sax incha allahu bi moom Macky Sall Emmanuel Macron da koy daal di dalal tey ji ci gëstu bés bi Henriette Kandé dafa def taxaw seetlu ci kii di président Macky Sall moom mi nga xam ne kat amoon nañ yaakaar loolu bañ ko falee ci atum 2012 ginnaaw nag ay jaar-jaaram nekkoon na fi premier ministre waaye tamit nekkoon tamit directeur campagne yu Ablaye Wade bañ koy falaat sax atum 2007 moom Macky Sall nag moom moo nekk vainqueur u ñaareelu alternance fii ci biir Sénégal mu indi woon nag yaakaar bu rëy ginnaaw bi nga xamee ne kat Abdoulaye Wade moom dafa saax-saaxee woon réewum Sénégal donte yaakaar boobu fasaloon nag ba mu jëlee réew mi ci bees bees bi Macky Sall dafa jékkee-jékki rek bàyyi lépp commencé nag indi ay parparloo loolu yëpp mu ngi ko jëmbal ci référendum atum 2016 bi nga xam ne kat moo koy jox doole joo xam ne kat bu doy waar la mu sax saaxee lu jëm ci wàllu institution yi waaye itam di tànn ñan la war a jonganteel ci élection présidentielle yi taxawal nguur goo xam ne kat gu am doole la ku sëqat ñu jàppale tëj la ci kaso bi moo tax sax ay nit jóg fipp ñooñu bokk na ci kii di Ousmane Sonko jaamaroog Macky Sall bu baax a baax loolu sax moo tax ba fi mu toll nii kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye nekk président de la République du Sénégal ci wàllu tàggat yaram de finale coupe yi ginnaaw tirage au sort bi nga xam ne kat amoon na dem ci siège fédération sénégalaise bu football su fekkee Tëngéej ak Jaraaf nag ñoom ñi nga xam ne kat ñoo jël premier ak troisième ci wàllu championnat ci bi nag ñoom am nañ adversaire yoo xam ne kat yemamaay la gis nañ nag ay match yu mag bokk nañ ci Casa Sport ak Génération Foot waaye tamit Pikine ak Stade de Mbour équipe yoo xam ne kat équipe bu Ligue 1 match yooyu nag ñu ko war a amal ñaar fukki fan ak ñaar nekk se e de finale coupe du Sénégal Casa Sport génération foot match boo xam ne bu am solo la loolu yéen kay Abdoulaye Soleil moo ko bind suñu naataango yemul foofu di fàttali jaraaf bi nga xam ne moo jël coupe du Sénégal moom dina dem fële ca Matam dajee fak ayo bu añaam mbokk jaa ngeen jëf ba beneen yoon allahu rabbi bonjour à la politique Le sport et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce samedi. Le Sud Quotidien s'arrête sur la visite de travail du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en Gambie. Diomaye en œuvre à Banjul, c'est le titre qui barre la ligne du journal. Mon confrère explique le tout nouveau président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye effectue une visite de travail en Gambie ce samedi auprès de son homologue Adama Barrow. De fortes attentes devraient être évoquées à de leur entretien, notamment le violence, la gestion des menaces djihadistes, le trafic de drogue et de faux billets, selon toujours mon confrère, tout comme la Mauritanie, le choix de la Gambie par les nouvelles autorités pour ce déplacement du président de la République relève d'une stratégie d'une importance capitale pour le Sénégal, du fait de l'enjeu que représente Banjul dans la gestion du dossier de la Casamance et la réussite de certaines politiques publiques. Conflit en Casamance, trafic illicite de bois, sécurité transfrontalière, Diomaye à l'épreuve de la sécurité nationale. C'est le titre qui barre la une du quotidien LAS. Au-delà du cachet que revêt cette visite, eu égard aux relations qui lient les deux pays, les deux chefs d'État sont entendus sur des questions liées à la crise casamançaise. Une visite pour consolider la coopération multiforme, écrivent nos confrères du quotidien national Le Soleil, qui précise que la sécurité et la défense restent l'une des vitrines de la coopération exemplaire entre le Sénégal et la Gambie. la porte de Barreau Selon 24 heures, selon mon confrère, la diplomatie de fraternité et de bon de la politique étrangère sous le magistère du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, traduit sa volonté affichée et assumée de poursuivre les relations cordiales que notre pays entretient avec ses voisins immédiats pour consolider l'intégration régionale et africaine. Selon le quotidien Le Quotidien, entre le Sénégal la Gambie, il y a Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye domination politique et diplomatique est venue renforcer le poids économique sénégalais à Banjul. La présence de l'armée et de la gendarmerie qui assure la protection du président Adama Barrow en est une parfaite illustration. Les enjeux d'une visite selon Direct News, unis par l'histoire et la géographie, le Sénégal et la Gambie partagent un même peuple avec les mêmes réalités socioculturelles. Selon mon confrère, les activités économiques entre les deux pays tournent principalement autour de l'agriculture, la pêche, l'élevage, le commerce, l'énergie et les hydrocarbures. Tabaski 2024, le gouvernement prend les devants selon Sud Quotidien. Dans une note adressée aux différents services de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a donné instruction au gouvernement de prendre des dispositions appropriées pour la bonne organisation de la fête de la Tabaski, en veillant en particulier à satisfaire la forte demande pour un approvisionnement correct du marché en moutons, à travers d'une part la mobilisation de l'offre nationale et d'autre part l'importation à partir quotidien Vox Populi qui e précise que le Premier ministre Ousmane Sonko annonce trois mesures phares pour un bon approvisionnement du marché en moutons. Assouplissement du contrôle des camions et véhicules transportant des moutons

prises par le gouvernement du Sénégal. Dans le quotidien L'Observateur, les éleveurs promettent un million de moutons. Le quotidien Enquête s'arrête sur le lancement du pacte de Paris pour les peuples et la planète. Macky Sall déroule, c'est le titre qui barre la du journal. Nos confrères révèlent que l'ancien chef d'État a pris aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Elle lance les quatre P. Macky a rencontré les ministres Cheikh il sera reçu demain dimanche par le président français Emmanuel Macron à Paris. Dans sa rubrique 4 hommes, un État, Sud Quotidien s'arrête sur Macky Selon Henriette Candegna, avec Macky la gestion libérale du pouvoir allait prendre un autre souffle. Premier ministre et directeur de campagne pour la réélection du président Abdoulaye en 2007, fut le vainqueur de la deuxième alternance à la tête du Sénégal. Un autre espoir après la fin des 12 ans du pape du shopping, quoique incarnant à ses débuts un nouveau style politique, celui d'un président moral, transparent, sobre, Macky Sall, n'incarnant pas la rupture tant attendue avec le mode clientéliste de gestion du pouvoir. Le référendum de 2016 consacre la réalité du pouvoir par laquelle Macky vampirise autant les institutions que le processus de sélection des candidats à la présidentielle. On assiste, on assiste de fait à la reconstitution d'un État superpuissant flottant au-dessus de la société civile dans laquelle la parole devient suspecte. Le point d'orgue sera le mortal combat entre Macky et Ousmane Sonko. une opposition frontale et meurtrière qui livre à terme le pouvoir au cinquième président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. En sport, football, selon Sud Quotidien, le tableau des 16e de finale de la Coupe du Sénégal était établi hier à l'issue du tirage au sort effectué au siège de la Fédération sénégalaise de football. Teungueth FC et Diakhar, qui occupent la première et troisième place, ont été épargnés. Ce n'est pas le cas pour les quatre à un entre Pikine et Stade de Mbour. Ces affiches sont prévues les 22, 23 et 24 avril prochains. 16e de finale de la Coupe du Sénégal, Casa Sport Génération Foot en attraction, écrivent nos confrères du quotidien LAS. Selon le quotidien national Le Soleil, le choc Casa Sport Génération Foot sera l'une des attractions. Le